ñu ñu ñu ngi lay nuyu mbër. waaw maa lay fay Abou Ndour. bu Reug Reug di di wax Ili. Siwo Bassar Bassoul Niodior nangam di day mel ni kuy kuy récité kii leçon miin bi nga miin Ili lu ko lu ko waral. waaw waaw avant tout mooy mooy li ma la wax rek xam nga tey jii ñun ay xale nañu ay deux mille deux mille treize nañ dem si àll bi. dem ñàkkante ka si àll bi fi ma lay wax nii yëpp dama fa bëre. Mhm. moo tax ma maîtriser ka mhm. am fa tamit ñu may ñaanal. ci mhm. waa kon ñooñu. awma lu dul seen fay waaw chaque jour dama leen ni bëggee di leen wax ñu gën a yokk ñaan mhm. dama fa nekkoon moo tax surtout waa Thialane tamit <laughs> <laughs> waaw rëg bi nekkoon Thialane mhm. di bëree <laughs> poids léger mhm. bi tey car macha allah def quinze combats sans sans sans défaite ban ndax ban ban <coughs> différence la am waaw non amul différence ndax rëg-rëg mu noonu bëre si làmb yi moo nekk nii ba léegi dara changé wul si moom nu mu noonu doxee moom lay doxee ba léegi bu ma demee nag ba dégg roi des arènes dina am leneen lu dox. waaw mais instant bi Reug Reug mi nga xamoon 2013 ba 2019 moo nekkaat nii. moo nekkaat nii waaw amul len lu ciy changé. Mhm. waaw. Mhm. bu nit ñi di wax ne Reug Reug mooy mbër mi def ci lutte sans frappe. Mhm. la nga xam ne amul benn mbër bu ko def. loolu lan la lay def yow. waaw mais xam nga lutte simple la. lutte simple moom jaar-jaar la woon rek. ndax yàlla suñu borom moom moo waxoon dinaa fa jaar. waaw tu am na ay champion ay champion yi champion ñu ngi si lutte simple bi mm-hmm. mais yàlla suñu borom xam nga tey jii dafa bind te yemalewul mm-hmm. yàlla suñu borom moo waxoon dinaa fi def lii mm-hmm. waaw kon lépp dañ koy sant yàlla suñu borom xam ne yàlla suñu borom moom moo ñu ko jagleel du kenn mais boo nee jaar jaar la la woon yaa ngi conjugué déjà au passé ndax loolu dafay wane ne Reug Reug ak ak ak li ñu safrab say non sayewul sax ba léegi xale laa waaw ñi nekk si làmb jëpp commencé ku ma si magul magoo maguma la mhm. yee li may wax si télé laa koy wax mhm. yow xam nga ko sax xam nga si dara mhm. ndax man xale laa ba léegi maa ngi sama yoon maa ngi sama yoon maa ngi xool daal luy gëm jëmale sama carrière kanam si laa nekk instant bi waaw am ñu wax ne ñun bu ñu defee sondage daaw ci wàllu ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, topp lutte sans frappe dañoo ne ñi la jiitu ci lutte sans frappe de amul ku ku def li nga def ci ci ci ci sa femme. waaw lépp sant la yàlla rek. xam nga tey jii ñun ay xale lan rek ay ndaw nañ mm-hmm. dañuy jàng ba léegi. Mm-hmm. waaw ñun mënuñu dara yàlla suñu borom moom moo ñu mottali moo ñu kattanal man def li ñuy def. Mm-hmm. waaw ndax ndax jàpp nga ne am na ku ku mën a li nga def. <laughs> waaw xam nga tey jii man moom. Mm. Euh, ma xamoon luy xew suba dama la koy wax. xaw ma luy xew suba. yàlla suñu borom rek kaa xam luy xew suba. waaw. performance yooyu rëg-rëg am. lan moo ko may. waaw gëm-gëm la ak entraînement ak bëgg lu muy def waaw damay seetlu maanaam bu nekki doomu mbër la rek nangam nangam day day basé wu si doomu mbër bi hmm. ñun basé wuñu foofu ndax ñun ku ñu xam sunu papa papa kan daan bëre hmm. ku jur sama yaay njaati hmm. danaan bëre bëri na bu bàyyi bëree kenn mosu daan ah xam nga moom la expliqué yee kon ñun basé wuñu foofu ñun dañoo dem génn reyante suñu bopp ba am li ñu am tey yàlla suñu borom tamit kàttanal ñu may ñu doole ba liñ am nii yàlla suñu borom waaw ak sunu ak sunu muñ nag mm-hmm. ndax muñ nañ ko trop mm-hmm. miti woon na trop gisuñu kenn xam mm-hmm. loolu la ñuy jug ko daanu ñuy jug ko daanu waaw man ak seex ñuy jug ko daanu ay ñoom mëmu waaw ak ñoom biraan ñoom dawur di jug ko daanu ba yàlla suñu borom def lii tey waaw Abdou Badji directeur technique national dama ko jël mu ne li Reug Reug lépp lu mu am si làmb rek sérieux si entraînement ak nangu entraînement mokk ko may moom mi nga xam ne yoroon na la euh, lu bëri loolu tam loo ci wax. waaw xam nga ñun moom ku ñu xam ne ñun moom dañuy entraîner ndax làmbaay suñu métier xam nga leen la laa conservateur mooy dara tey jii len lii sa métier la da nga koy jox gëdd bi mu am nga dem entraîner ji boo entraîner ji ba pare ñëw lekk fa rek tëdd nelaw ngoon jot nga dem entraîner ji waat. am lu ma la expliqué. loolu ñun noonu ñun noon la loon liggéey ñun maanaam dañ ko jox gëdd bi xam ne lii doonul fi caaxaan. te tey làmb dafa doon loo xam ne tey man nga see baaxle ba faw man nga see yàqule ba faw am na ma lay expliquer ndax tey jii amuñu benn métier kon ñun dañ koy respecté jox ko gëdd bi lu mu laaj ñu def ko entraînement muy wàllu lépp dañ ko koy jox ndax moom la yellal boo ko joxul rek doo am dara si làmb ji ndax dimanche ba lundi da ngay entraîné wala am na ay jours tëbal wala en fonction non man damay tëbal samedi ak dimanche ndax li may ndax li may entraîné dafa métti boo xoolee damay sept heures laay dem salle bu ma demee salle ñëw si kër gi bu ma ñëwee yëre yi ma dem salle du ma ko simmi damay lekk tuuti mburu oto bi ma yéegaat dem Dakar entraîné ji ma ñëwee bala ma ñëw fii cinq heures jot cinq heures si ngoon jot bu jotee damay ñëw sangu lekk tuuti xaar six heures jot ma dem dawi juwaat dem géej xam nga loolu métti na mais lépp suñu gëm-gëm la ak bëgg lu ñuy def moo tax waaw rëg-rëg buy def loolu ça veut dire am na am na lu lu mu koy def. waaw am naa lu tax mu lu ma koy def mais. bu dul dara dara dara dara. Hmm. ñaari séance lay entraîné man musuma entraîné benn séance. Hmm. man du man maanaam ay noppalu ko nii nangam nangam non hmm. bi ma jógee États-Unis maa ngi jógee États-Unis bu ma juumulee samedi. waaw samedi laa egg fii la la 4. laa egg fii la 5 damaa dem entraînement. 5 damaa dem entraînement. walaay d' accord léegi bu ñu fa jógee ñëw ci. Ah. lutte sans lutte avec frappe. Mhm. parce que ñu bëri Reug Reug bu ñu ko waxee rek euh, ci lut avec sans bi lañ koy gën a miné. Mhm. waaye teewul yaa ngi def ay jéego. yaa ngi mhm. def topp sa yoon. 15 combats sans sans sans victoire. sans sans défaite sans défaite loolu lu lu koy may bëri. waaw mais xam nga tey jii ñu loolu gëm-gëm la ak bëgg li ngay def ak ak ko fi yàlla jàppale. ñun maluñu dara yàlla suñu borom moo ñu jàppale moo ñu kàttanal ban tey ji ñuy def lool te des na lu bëri defaguñu dara yee eh, defaguñu dara si làmb eh, tant que man teewuma roi bi defaguma dara si làmb waa te foofu laa teg sama bët te foofu laa visé waaw mais bala ngay àgg balaa ngay àgg si roi bi mhm. certainement am na ay combat yoo war a am c'est vrai que daan nga Bébé Saloum c'est vrai que daan nga Jordan c'est vrai que daan nga Elton ak ak ak Gride mais dafa da nga tombe tey da nga toll tey si bëri ak ak ñi ñi naan ñoom ñoo nekk si anti chambre VIP lan moo tax combat Reug Reug metti waa ma xam nga loolu moom boo ma ko laajee man moom du ma am lenn lu ma la si tontu ndax promoteurs yi ñu ngi seeti mbër yi mais ñoom ñoo nangu la wax ñoo nangu la bëreeg man ñoo nangu la waaw mais xam nga du ma cité benn tour man bëgguma tooñ waaw man boo ma interrogé si man rek laay wax waaw sama sama sama bopp rek laay wax mais waaw non non loolu du problème man moom tudduma fi kenn mais dama ne la lamb ji ñu baal ma si kàddu gi nag lamb ji dafa bari ragal bëri ragal waaw nañ ma baal si kàddu gi nag bëri waaw dafa bëri ay tapet mhm. lamb ji mhm. nañ bëri suñu biir lamb ibbeeku waaw mais kenn ku ne bëgg yootu yóotu fenn yóotu fenn fenn fenn naan kii dama war a bëreeg moom wala damay am xel xel ñaar wala kii maaka raw patati patata mhm. loolu day gën a suuxal làmb gis nga làmb ay morom buñ ci tolloo mhm. dañuy bëree sama la ma la expliqué mhm. gis nga Boy Niang dafa prouvé si ay moroomam ñu may ka sens mu dem mu dem si ay magam xam nga ma lay expliqué kon ngalawaay ñoo ñu mayee chance ñun ñooñu nañ ñëw ñu bëri waat suñu biir yow tey bu bu la doon tegal waaw nga bëree sa morom bi wala nga bëree parce que ñu ngi tudd sa combat mhm. bu ma bu bu la tegal euh, ne la da ngay choisir entre bëreek ñi nga maaseel mhm. euh, ak ak ba bëreeg ñi la ñi la mag yow ban ngay jël comme que <laughs> sama sama ñi ma maaseel nangoo ñu maa jël ma jël ki ma mag ñi ma mag rek laa mën a jël ndax ñi ma ñi ma maasal nanguñu ma amu fit bëre ak man nanguñu maa jël mhm. ndax tey jii ku si jël Reug Reug di nga xam ne ni am nga combat mhm. di nga entre di nga di daj di nga daj ay coono yu mëti mhm. coono yu mëti moom di nga ko daj ndax Reug nga amal komba waaw bu doonee bëre dàqu kaa bëre bu doonee doole ëppoo ko doole waaw leneen li moom du ma si àgg ngemb léegi loolu non yooyu moom du si àgg yooyu moom deuxième la ñaar yooyu laa la limal waaye yow mhm. tegoo ko deuxième bi sax non non baa ma tekk deuxième rek parce que doole da ko tudd mais tamit ku mel ni Ambroise muy coach équipe nationale xam la waaw dama ko jël barke de mu ne amul kenn kuy takk ngemb instant bi ëpp Reug Reug doole d'accord nga ci loolu wala d'accord non moom xam na ma ndax xam na man lu may liggéey xam na bu ma jàppanteeg mbëri xam na xam nga moom mhm. euh, moom référence la si làmb xam nga lu ma la expliqué sunu papa la mhm. ñu ngi koy ñaanal fanu gudd yàlla suñu borom bàyyi ko fi ba si kanam ak kanam ak kanam waaw si barki Seydina mais kooku lu mu la wax si làmb rek du dañ ndax làmb la ko ngoogu waaw ñu ngi koy ziyaare di ko nuyu ñu ngi fi doon wax euh, rëg-rëg Yékini junior rëg-rëg guy gi rëg-rëg Sa Thiès rëg-rëg Garga Mbossé lan moo tax combat yooyu benn mënul taxaw ci combat yi <laughs> waaw loolu moom lu ma siy wax bëriwul ah, xam nga tey jii man sama bopp laay wax hmm. sama bopp hmm. combat du mm-hmm. tegee si man mm-hmm. Mm-hmm. foofu laa si yem. ñëw nañu seet la pour combat xanaa déggoo ma. combat du tegee si man bu ma waxalee te yàlla rek tax. ah promoteur musuma wax ñu nga may wax nii. yaa bu ma waxalee te yàlla rek tax. kenn kenn mësu la ko proposé. non kenn mësuma ko proposé. mais on t'a proposé. Eh, proposé nañ non non non non dafa nang mm. proposé nañ ma. guy gi. Mm. proposé nañ ma saakees. saakees mais xam nga tey jii. Euh, du ma fi nekk di débat. waaw man damay bañ ku ma yeb mhm. ndax nit ki amul lu dul sa parole. xam nga lu ma la ñoo ñu nga wax ñëpp samay grand nañ ñoo ma mag fuuf. xam nga lu ma la expliqué. Mhm. Mhm. xëy na làmb dabante la. xëy sama dama leen dab. mais ñoo ma mag fuuf. mais dama lay xamal ni euh, promoteur. xaw ma nag promoteur ñëw nañ ci ñoom. sama yoon newul si loolu xam nga lu ma la expliqué mais promoteur ñëw nañ ci man ma wax ko kii laa bëgg a bëreel. est-ce que la ma lay sublier mu de xaw ma nag dem na si ñoom mais promoteur bi lii la ma tontu ne ma hee ñii nee na nangam ak nangam ma ne ko ok amul problème ma ne ko kon ku ma yàlla boole rek ma bëri ak moom